تجي منه في دارين أبكارا شكري لرب كريم من غنى زكارا وأرتجي منه في دارين أبكارا كتبت شكرا له ما قد رجوت به waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla di duteenent bi ñu ngi sant Serigne Touba di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla na fi yàgg te naa li mu naa la lislaam naa la ko sëñ Touba mu àggale ko sakom te nu ànd moom di ko ñaanal mbooleem njabootu Serigne Touba ak jëwriñam yi ak mbooleem taalibe yi ak bépp mbokkum jullit ak képp ki soosa daal dox te lislaam rekk tax ñuy ñaanal bu baax borom pàkk bii nga xam ni moo fi dajale mbooloo mi muy Cheikh Mamadou Bassir moom Serigne Abdou Khadir ginnaaw bi ñu ko ñaanalee yàlla sa borom guddal fanam te wéral ko moom it ba yéene ji nga xam ni moom la kilifaam yi am ci moom ba yëkkati cër bii dox ko ci yoon yi mu yor kàddu bu baax yàlla na ko yàlla sàmm te aar ko yan bi yàlla na oyof nag kenn du ko ñaanal ko dem liggéey Serigne Touba da nga ko naan ne diis gan waaye yàlla na ko Serigne bi téye ñu boppam ndax rek bu soobee diisaay bi ña koy séen a koy gis waaye yow mi ko yann moom doo yëg ni li nga yann diis na kon yàlla na ko sëriñ bi téen ni ko waxee rek bi mu ñëwee ci ndakaaru boobaak tey mel na ni VDN bi nii mu mel fan yii dëgg yàlla oto yi ci buntu kër gi ak xataay bi kenn ku ne di ñëw ku ne di dugg ku ne di génn loola du mbetteel du karaama tey du du xar baax ndax buñ ne sëñ Basiiru ku ko jur ñu ne sëñ Abdu Xaadir sëñ Abdou mu sëriñ Touba sëñ Abdou Khadir mooy ilimaan yi soxna ummi Touba mu sëñ wax na ma ni boo ko masaan bàyyi wala maam yàlla na nga fi yàgg te danaan kon baax ci yéen kon sëñ Abdou Khadir ak nekkam ci jamono taw ñam jamono te la seenug defaru jariñu la muy koo xam nit a ah, réew mi nees nañ ci ko waxtaane ren ba déwén ci ay xar baaxam ak jëfam ju baax ak fonk diineem ak fonkoon na juróom ndax waxtu bi lim ko jaraloon war naa mën a tax doomam bu wàccee fenn diine war koo mën a fayee lu ne ndax bi mu wàccee fii ak léegi tarixa yëpp fi daje umma islami bi kenn desul fenn fu ne kilifa diine nga fay jóge di ñëw ba fii di saafanteeg moom ba ci ndakaaru gii ñi nga xam ni ñooy lébu yi moom Dakar ñu mën leen tuddee ñii ay jaraa sëriñ ñii ay jaraaf ñii nàngam ñii nàngam kenn ku ne ci ñoom ñëw nga fii saafanteeg sëriñ bi dalal ko ànd ak moom bi rawatina nag taalibe Serigne Touba yi Hizbut Tarqiyyah jëwriñ yu si jóg mi ngi nee toog bii Serigne bi ñëwee fii ak léegi bis bu set kuréelu xasida gi tàkkusaan bu jot ñu ñëw ànd ak Serigne bi liggéey ak yeneen mbooleem kuréel yi bari yoo xam ni ci biir Ndakaaru ak li ko wër mbooleem mbokk yi nga xam ni ñoom la bokkal Sëñ Touba te ñu nekk fii ci Ndakaaru kenn ku ne ci ñoom it yaa ngi def ay siyaar di ànd ak sa njaboot di ñëw di ko siyaare si ba ci seexi Sëñ Touba yi barki dem rek gis nga seex Sidi Moxtaar Sylla siyaar bu am solo bii nga xam ni def na ko fi ànd kook waawakaam Wakaam yëpp ñëw fii siyaare sëriñ bi sëriñ Mamor Bousso ngi nii bàyyi ko ba Bambilor moom it ñëw léegi ak mbooleem fu ne rek waa kër si Abdourahmane Fall ci laalo si Abdou Aziz Fall mi ngi nii ci biir moom it te dara waru ko du jokk kóllëre gi nga xam ni moom la bàyyam amoon digg digganteem ak sëñ Bassirou mu sëñ Abdou Khadir loolu lépp nag sëñ bi doomi sëñ Abdou Khadir la yor na kàddu kaddu mu rek waaye li fi bàyyi nit ñi nag ak yeneen ko dajale ba ku toog doo doyal te ku dem ñëwaat loolu jikkooy boppam la ndax nag li nga naan ah ñam naa ko mu neex dootuma ko bàyyi mooy la nga ñam a neex ñam gu neex gi nag su ma ko waxee mooy sëriñ bi koo mën a doon boo ñëwee dana la may yitte jootaay bi lu mu xat-xat seen Bassirou Abdou Khadre dana bàyyi caw jeexital boo xam ni day tax da yow ni fa saasa da nga koy nammaat mooy jëmmi doomi aadama être humain moom la seen Bassirou Abdou Khadre fonk maanaam xeebul kenn jox na ku ne kenn ku ne li nga li nga am ci moom dala koy jox ba mu mat sëkk ku ne xam ne ni nii mu toogee danga koy xool xam ni kii tegoo na ay coono waaye day mel ni sax moom du ko yëg mbooloo mi sax bu bu dee dal ci kawam sax nga gis nit ñi di leen cee danaan nan nan nan leen bàyyi ndax bu doon man rek buñ fi ñëw niñ may def sëñ Tuubaa tax ñu di ma ko def kon loolu nag doy na sëkk tawfeex ndax sëñ bi moom boo ci bokkee te xam lim la defal ni sëñ Bass mel rek noon ngay mel ndax fépp foo wàcc nit jox la benn loxo nuyu la bu la nee sant ma nga ne ko mbàkkee force beneen loxo bi day ñëwaat beneen loxo boobu di ñëwaat nag yow moomoo ko sëñ bee ko moom beneen loxo boobu nag.